kii ñëw tey président yebal ko mu ànd delegation bu bari waaye mu am ci mbégte nag ndax kër gi rek la mu ngi ànd ak ministre Gallo Ba di doomi mbake di sa doom tubaarkàlla mi ngi ànd ak sa doom sa jarbaat moo leen teeru ministre conseiller Cheikh Abdoulahat Gaynde Fatma di borom bis bi waaye moo leen teeru ndax ndomb ak tànk gi mu ngi àndante ak gouverneur de la région ak ses mi ngi ànd ak préfet bu bees bii ñu doog a indi Mbàkke première génnam di màggaluk Cheikh Abdou Lahad mi ngi àndante ak sous préfet bu ndaam moom itam ñëw na waaye mi ngi àndante ak ambassadeur Alaaji Dia doomu Mbàkke moom itam di kenn ci président doomi Bambey di kenn ci président de la république Alaaji Dia doomu Macky Sall la mi ngi nii àndante ak ministre conseil Isma Dioum moom itam mi ngi nii toog mi ngi ànd ak au conseil Mara Diop mu Cheikh Sidil Makhtar moom itam mi ngi nii toog ak njaboot gu bari sëriñ Bousso bi ak délégation bi mu àndal waaye bi muy ñëw nag mu indaale waa këram ni leen président la république moo ma yónni waaye kam ma yónni nag laa yaakaar ñëw leen ngeen dem ca seen sama sëriñ ma ànd ak yéen jébbal leen ko teg ko ci loxoom àndan teg délégation bu am solo ñoom ñëpp Mbàkke ñëw nañ fi fekk si nag bi ñu yegsee sa ñaari rakk yu baax yi sëriñ Cheikh Mbàkke mu Cheikh Abdoul ak sëriñ Ahmadou Rafael mu sëriñ Fallu mooy sa ñaari rakk yi nga xam ne ca suba ba léegi ñu ngi toog togguwuñu ak sa rak soxna maam xëri Mbakke mu Cheikh Amadou Moutada ak njaboot gi yëpp lii ba notaire di taalu bi ci kër gi ñëpp ñu ngi fi ak ak Baara Sow moom itam tubaar tubaarkàlla dafay kenn ci président la république moom itam ñëw na ñu déglu nag ki nga xam ni moom la président yónni. waaleykum wa rahmatullah ñu ngi. sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant sëriñ Touba bu baax a baax ci lim ñu may ñu dellu si fii ci Touba dellusi ci fii ci suñu wetu sëriñ waaye suñu wayjur aussi ci bés bu màgg bi ñuy fàttaliku sëriñ Abdoul Ahad mbakke yal na yàlla yokk leeram président Macky Sall di njiiti réew mi di sa doom di taalibe ci yoon wi yónni ñu pour ñu ñëw seet si la ndokkel la ci bés bi di bés bu màgg di bésu jaamu yàlla di bés boo xamante ni fàttaliku lu baax la fàttaliku it jikko yi nga xamante ne Cheikh doon na ko dugal ci doom yi taalibe yi ak askan wi mu nekk nag lu rëy ci man personnellement loo xamante ne buñ la yónniwul nga dem buñ la ca yónnee day doon mbégte parce que mënuñoo am bés bu ëpp bii ki ñu yónni it ci wàllu àdduna biñ seq gisuñu ko ko ëpp ci ñun kon boo boolee ñaar yooyu day doon lu rëy rëy ci ñun ñu ñëw fekk la fi nag sëriñ bi di la ñaanal yàlla yàlla yokku fan yi yokku wër gi di jël ziaru président Macky Sall ak délégation bi ñu àndal yëpp di ko teg sa loxo pour nga jàllal ni ko xalif général des murit sëriñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wër ñu fekk fiit it suñuy sëriñ sëriñ Cheikh ñu ngi lay ziar di ziar it sëriñ Ahmadou di ko ziar moom itamit di am mbégte fekk leen fi ñu nag ay taalibe lañ boo tuddee sëriñ si rek tudd nañ ñëpp daf doon ne boo amee ay soppee kilifa gi ñu yónni tey doon ñu yónni ci loo xamante ne fàttaliku la suñu kilifa yi nga am ci ñoom cofeel fekk leen fi day baax ñu jaar ci seen seen tur tànk yi may dox nag tey sëriñ Abdou bi mënoon na ko dox ñi lim ci délégation bi yëpp matte nañ ko pour def ko waaye njiiti réew mi daf ma woo fekk ma nekk fatik mu ne ma loo mënti def dellu Ndakaaru nga demal ma ci sama wéyjur demal ma ci sama sëriñ ziareel ma ko ñaanalal ma ko yàlla yàlla yokk taxawaayam yàggal taxawaayam yokk fan yi yokk wër gi loolu taalibe yëpp daanaka mun naa ne Sénégal yëpp ñoo leen warlul di leen ñaanal parce que yeneen njiit yi lu ngeen fi gën di yàgg mu gën a baax ci ñun parce que dinañuy gën a xam li ñuy teg ci yoon wi ñu war a tegu fii ñu ñëw nag ak ki nga xamante moom lañ defal bés bii xanaa ku bëggul a dégg waaye ku ko déglu doo juum ku ko déglu it di nga xam fi ngay teg sa tànk ci ngëm yàlla doon taalibe Serigne Touba ba pare nag nekk ci dëgg parce que dëgg nag moom mooy tax lépp jub kon ñun ñi ñëpp ni may waxale sama bopp xam naa mën naa ko waxale keneen des fois boo weetee ba convoqué li Serigne Abdoul Ahad Mbacké doon wax ak askan wi di nga xam fi ngay teg sa tànk kon dañuy ñaan yàlla yàlla may ñu ñu koy def ati at yu bëree bari kenn du ñaan muy yokk parce que ñoom xam na ne luñ luñ leen defal du wàññeeku kon dañuy ñaan am nopp yu mun a dégg am xel mu mun a ràññee ba lépp lu ñu fi jëlee muy leçon ci ñun baax ci njaboot gi leneen li ci des nag moom mooy mu lay ñaan xam na ne yaa ngi ci guddi yaa ngi ci bëccëg parce que réew mii bu ñu amee ñu ko bëgg sëriñ si la war a jiital parce que ñoom la yàlla may may leen xam-xam ba pare def ci ñoom ñu yaakaar leen te ku jiite njaboot da ngay bëgg ñu mucc kon réew mi bu fekkee ne jàmm lañ fi wut bu ñuy jiital sëriñ si la ñuy jiital moo tax mu ne ci li nga nekk ak lii sëriñ nekk di ñaanal réew mi nañu ci wéy yokk ko parce que senegal jàmm la xam senegal xëccoo mun na am waaye yàlla na lépp ñu koy wéer ci gëm yàlla te xam ne yàlla rek ay joxe ku ne nag sañ nga bëgg waaye yàlla na yàlla wëññi ñëpp ba ñu xam ne lépp dafa war a sedd lépp dafa war a nekk jàmm parce que jàmm moo tax Tuubaa gii mënoon naa amee neneen waaye Serigne Touba ci jàmm la ko def te mënuñoo am ku ko gën nit nag mënoo am njiit mun ne ci lii nga ne ca lee yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi yàlla kattanal ko nag dañoo yónni wax ñu yeb ñu waaye ñun nag ñoo génn ci yonent boobu dëkk ay loxo pour moom muy président Macky Sall boo amee nit ci nit cofeel wala nga yaakaar nit wala nga ànd ak moom bu jamono di dox ba dëkk mel nii senegal mel tey képp ku ànd ak moom war nga am ci moom ñëwantal parce que nit ñi léegi bu njëkk dañ daan toog di wax kenn du dégg waaye léegi sutura bareetul ku nekk day yor sa téléphone di wax lu tegginuwul te kooko wax nit la bu ko yàlla ngembee nag dina ko mën a muñ waaye bu mel ni Matar Ba mi defe naa ne moom dayel di mer fu mu ne parce que boo koy dégg dana dayel di métti ñëpp xam nañ ne li ñuy dégg ci réseau sociaux yi li ñuy wax ci réew mi mënta sotti réew ay charte ko yor charte baax na charte ya am na lu ca manqué mën naa am waaye nañ tënku ci charte yi ba gis lu ko gën loolu mooy dëgg war nañ koo yokk am na rëq-rëq ku ne mën na koo dégg waaye nañ jaar fa ñu war a jaar ci yoon boo mën koo jubbanti ku nekk mën ko muñ nag ñu jubbanti ko tant loolu amul li fi ne moo ñu war a tënk ñun ñëpp suñu ko defee rek réew mi fañ ca bëgg yegg dañ fa ñun nag amuñu ku dul ki ñu yónni muy président Macky Sall ñu koy ñaan di ñaan taalibe ñu ñaanal ko ak sëriñ mu am jàmm ci réew mi may ko xel may ko dal ba mu ko joxee réew mi ba tey yàlla nga koy dimbale ku gis li fi xew ci liggéey nga xam ne ku liggéey mu sotti rek yàllaa ci jàpp yàlla na ko yàlla continuer di jàppale ci dal ak jàmm réew mi continuer ci jàmm ni ko Serigne Touba bëggee ni ko Serigne Mountakha xalif général de Mourides bëggee ni ko Serigne Sidi mii sama Serigne sama wéjur bëggee loolu mooy li nga xamante ne. moom lañu tegoon ci suñu loxo mu mat mu matadi ci ñun lay doon waaye li président Macky Sall bëgg ñëpp xam nañ ko njiiti réew du jiite réew di bëgg mu tàkk amul kër sax walla luñ la dënk sax buñ la ko dénkee doo bëgg mu yàqu kon yàqu-yàqu nit ñi war nañ ko moytu lii am ci ñu ko daan dégg ca ay libi di ko daan dégg fu gën a sori Libye ay Syrie suñ demee bañ naan boo rombee Kidira tàkku saan weesu fa ngay fanaan parce que doo mën a dem war na tax ñun ñu ñu xam ne suñu yitte baax na lool waaye yitte askan wi moo ëpp doole loo gis suñuy sëriñ ñaan la ñuy def waaye ñun ñi nga xam ne ñooy taalibe ñoo war a gunge ñaan yooyu ci ànd ak dal ak respe joxante war ma moo tax ndaw yi ànd ak ñun ñëpp may ànd ak ñoom fu ne loolu laa leen wax lu nit am te du yar ak teggin amul dara parce que kiy joxe du nit da koy jaaral ci nit ñi nag waaye nit ku yar li koy musal mooy mu am yar am teggin joxe war ma loolu laa doon denki nit ñi di ko dénk ñi nga xam ñoom laa àndal te ñu nekk ay ndaw waaye di la ñaanalaat sëriñ bi nga yàgg fi lool te ànd ak wër yàlla sàmm njaboot gi yàlla def jàmm ci réew mi loolu lañ ma waxoon bu ma ñëwee ma wax la ko di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ Matar yow ak délégation bi nga àndal yëpp ci turu kii di sunu kilifa di sunu lépp di sëriñ Sidi Abdou Lahad ñu ngi lay dellu ab nuyoo di rafetlu kàddu yi nga yëkkati di nuyu di nuyu ñi ngi àndal si Ablaye lim na ko léegi waaye bu ngi tuddee le ministre Gallo Ba gouverneur ak ñi àndal ak ambassadeur itinérant El Hadj Dia dañu yóbbaale ngir si ñëpp di la xamal ne sëñ bi de am na mbégte ci yoon wi ci anam yu bari ba ci jiitu mooy yow mi yabal ngay doom di taalibe di xarit te lu ki nekk nga jëf ko mu lay sant bu baax kon bu la président jàppee yónni wàlla fii ki sa kër li nga wax nga xam ne bu boo ñëw bu la yebaloon nga ñëw bu la dikk mu yebal la loolu mbégte la boole ak doomi dëkk bi di ministre Gallo Bome ak ñi ngeen àndal ñëpp kenn ku ci nekk am cër ci Touba ba ci Isma Diouf mi toog muy am mbégte ci digganteem ak ki nga xam ne moo la fi yebal mu di président de la république muy diggante boo xam ne dafay diggante bu leer màggal gi moom ci taxawaay bu mat sëkk taxawaay bu rafet démb ay ndawam ñëw nañu fi tey jii jokkoon na ak moom woo ko téléphone waxtaan ak moom ci lu yàgg yàgg yàgg yàgg yaa ngi nii di ñëw tamit ànd ak délégation bi yëpp kon loolu foog naa ne moom mbir la moo xamante ne bii li nga xam ne noonu la jàppe sëriñ bi wane na ko te sëriñ bi waxoon naa la ko daaw te loolu yaa mu gën a xam moom ni mu mel nii noonu la mel foo ko bàyyi fa koy fekkaat lu mu la wax moo ne ci moom lu mu jàpp du ko bay te sëriñ bi foofu la nekk te loolu Sénégal gépp xam nañ ko ci moom ci ak njub ak dëgg rek ànd ak nit loolu Sénégal gépp xam nañ ko ci moom kon bu ngeen demee ngeen ne ko sëriñ mi ngi koy sant mi ngi koy gërëm ndax xam na ne jàpp na ko téye na ko jox na ko cër ay ndawam duñ jóg fi moom waxtu wu nekk ñu ngi jokkaloo duñ umbante guddi duñ umbante bëccëg loolu nag jàpp na ko xam na ko kon lool itam mi ngi lay xamal ne boo demee nga wax ko président ne ko kat sëriñ bi mi ngi koy sant mi ngi koy gërëm ci taxawaayam ci moom di ko sant di gërëm ci taxawaayam ci dëkk bi li nga xam ne mi ngi koy liggéeyal sëriñ bi ci dëkk bi nga xam ne amul lu dul moom di ko liggéeyal ci taal bi nga xam ne amul moom kon mi ngi koy sant mi ngi koy mi ngi koy gërëm di la xamal ne ñaan yi nga xam ne yaa ngi koy sakku loolu day waru garam ndax fii mu nekk ñaan ak xet li bindee fii ak dimbali taalibe yi ak teg lañ siraatal mustaqim moo ko fi bay moo tax mi ngi ñaan jàmm yàlla def ko ci réew mi di ñaan li nga xamante ne bii mooy li gën ci Sénégal sunu borom defal ko di ñaan nawet boo xam ne du barkeel lay doon di ñaanal mboolem jullit yi di ñaanal mboolem taalibe yi waaye moom itam ne ko mi ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ndax moo ne ci bopp réew mi bu amee jàmm rek réew mi dana am jàmm kon nekku ko ñaan yi moom guddi ak bëccëg mi ngi ci du ko bay mukk te léegi bi mu ko weete waxata dog kon foo sëriñ bi foofu foofu la nekk kon mi ngi feeñal mbégteem di la xamal ne daal bëgg na lool ci yoon wi di la xamal ne ku bëgg ci président de la di la xamal itam ñaan yooyu mi ngi ci sax dàkk guddi ak bëccëg te ñaan yooyu suñu borom da ko neenal di ñaan nag ñëpp ñu dox ci jàmm ndax jàmm itam boo ko ñaanee ba noppi di nga juñu léegi da ngay waaxu gàttandu ko kon mi ngi ñaan ñëpp itam ñu ànd ak dal yokk yar bi yokk teggin yi bàyyi waxi ñàkki teggin yi moytu réseaux sociaux yi di yéene lu baax di wax lu baax di jëf lu baax loolu mooy ndigal li nga xam ne mooy ndigal li nga xam ne moom la Cheikh loolu mooy li muy digal mbooleem taalibe yi di ko digal mboolem képp koo xamante ne bii itam sañ na laa digal di ko digal képp koo xamante ne itam yéene la la jàmm mu jàmm yéen a jullit yëpp jàmm la yéen Sénégal gépp kon loolu foog naa ne bu ñu ko defee tënku ci loolu suñu borom danañu dimbali ba jàmm dana sax ci réew mi te jàmm jooju nag la waajur suñu Ahmadou Rafa mi waxoon rek Cheikh Mamadou Fadal défense Sénégal mi ngi fii ci dëkk bii te loolu du fi jóg bu mukk ba ba at mi tukki kon défense moom mi ngi fii ci Touba te bu soobee yàlla fii ak ñoom ñi ngi fi di ñaan nii jàmm rek mooy am ci réew di la présenté nag Serigne Cheikh mais di rakkam di léppam daa fekkoon ko fa ren fekkaan nga ko fi yàlla nañ fa daje yàlla nañ fa dajawaat déwén ak si Ahmadou Rafaay Mate moom itam di rakkam di léppam yàlla nañ fa dajawaat déwén di sant ñëpp di gërëm ñëpp mi ngi yóbbante ak cat nag ci ministre des finances Moustapha Ba moom itam eh, taxaw na bu baax a baax ci wetam moom itam di wëlëram di xaritam di di sant Amadou Ba ak mboolem rek tous les membres du gouvernement bàyyiwul kenn kenn ci waa ne yoon si fi léegi ñoom ñëpp ñoom ñëpp jàpp nañ ci bis bi ñoom ñëpp jaw nañ fi kon mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp moom daal fas yéene fas yéene toog na fii nekk fi li nga xam ne moom la fi mooy la fi wajuru baax ma nekke woon di jaamu yàlla di taxawu njabar Serigne Touba gi waaw Abdoulaye Daouda Diallo moom ab moom di taalibe moom fi la dëkk <laughs> moom foog naa ne waaw ci la bokk moom moom moom Matar bi ñoo fi ñoo fi ñoom atte man sotti ñëw na fi démb Abdou Karim Fax na aussi démb fi la yendu moom ñoom ñëpp rek dañ ko jàpp ñëpp ñëpp ñëw ma ngoog ñëpp njaboot gépp ndax xam nañ diggam ak président li fi dox xam nañ li mu ëmbal président xam nañ li ko président ëmbal moo tax képp koo xam ne bëgg nga lu neex président rek bala nga am jàmm di nga ñëw siyaare ko saafante ak moom ndax ñoom ñëpp tam loolu mooy seen jàmm gàlla yooyu itam ñu ngi bu baax di la gërëm ki sa eh, eh, ki sa taxawaay ci dëkk bi ki sa taxawaay ci département bi mu ne man su fay itam ñëw na fi démb kon mi ngi sant ñoom mi ngi gërëm ñëpp Matar yow kon cant gi moom nañ ko feddliwaat rek li ci des nag sa digg sëñ moom dama leen bàyyi yéen ñaar rek foog naa ne <laughs> duma ci kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sëñ bétim nag li am lépp mi ngi fi Abdoulahat Ka mi ngi nii toog Matar waxoon naa ko daaw naa ko waxaat Cheikh moom Muntaxa da ko doyloo dénk ko dëkk bi teg ko ci loxoom moom itam mu doyloo Abdoulahat mii jëlaat dëkk bi teg ko ci loxoom te buñ ne maire dafa bokk ci pàcc goo xam ne ci état la bokk kon jàppale gi jàppalante gi dafa mënut a ñàkk ci seen diggante ak moom moo tax itam boo dee nga ne président sëriñ bi mi ngi koy gën a dénk Abdoul Ahad bi mu jàppale ko ci li nga xamante ne bii moom lañ ko dénk muy maire bi ndax am na fi yéene bëgg na mi ngi góorgóorlu te bu ko jàppalee foog naa ne li mu bëgg lépp dana ko mën def te loolu lépp rek day delluwaat ci sëñ bi ndax lépp ki taalibe yi la jëm mi ngi leen dénk njaboot gépp sëñ Abdoul Ahad ma nga ne dégg naa fi Basiru si sëñ Abdoul njaboot gépp ngi fi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh lépp lu ci mbatt rek maa ngi koy jégalu jërëjëf.